أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين بصيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñu ngi ànd ak yéen ci sunu ñaareelu dars ci téere boobu tudd al usul asalaasa bi paase ñoo ngi jëloon bismillahi rrahmani rrahim tey ñoo ngi jël al ilmu mu ne téere bi dafa ëmb ay masail al arbaa allati dammanatha suratul asr téere bi daa am ñeenti masala yoo xam ne daf ko ëmb ñeenti masala yu téere bi ëmb waaye ñeenti masala yooyu téere baa ngi leen tënke ci saar bu tudd suuratul asr ñeenti masala yooyu al usulu salaasa daf koy faram-fànce yooyu nag bi ci njëkk mooy al ilmu al ilmu al ilmu mooy xam-xam moo tax téere bi li ci njëkk mu ne i'lam rahimakallah i'lam xamal yow jullit rahimakallah yal na la yàlla yërëm i'lam xamal yow muy jàng rahimakallah yal na la yàlla yërëm i'lam xamal yow mi sàkku xam-xam rahimakallah yal na la yàlla yërëm borom téere bi ku baax la daf lay jàngal ba pare di la ñaanal yërmande yàlla tabaraka wa taala mu ne wax jim ne i'lam xamal fi'lu bi fi'lu lan la fi'lu amr lu tax ñu ne fi'lu bi fi'lu amr la lu tax ñu ne fi'lu bi fi'lu amr la lu tax ñu ne fi'lu bi fi'lu amr la nu ñu xamee ne fi'lu amr la fin bi lu ci nekk Seyda i'lam fii lu am rek mooy sukkoon te mu ne i'lam nee na kalimatun baat la boo xam ne tusiiru ila al ihtimaami benn baat la boo xam ne dafay joxoñ pour nga bàyyi importance pour nga bàyyi xel xam ne lu am importance la bil mawdu ci sujet bi ci li ngay jàng ci mawdu bi dafa la mel ne daf laa ne hee bàyyil xel ci li ngay jàng te mu ne la i'lam fa ida qaala i'lam fa maanaahu an al amra allazi sa yulqiihi alayka amrun muhimmun ki lay jàngal téere bi nee na su fekkente ne dañ laa wax hee xamal nee na fa maanaahu lu muy tekki maanaa bi lu muy tekki maanaa bi dëgg-dëgg mooy mbir mii ñu lay waaj a jàngal mbir la mu am solo mbir la mu yitteel mbir la mu am importance kon war nga ne tekk xerawul déglu ko fa haadihi l kalima tadullu ala ahami ahamiyati l mawduu nee na baat bi ilam daf lay wone ne sujet bi mawduu bi tomb bi dafa am importance allazi yabda'u biha fiihi liñ koy commencé dafa am solo trop trop trop trop moo tax mu ne la ilam ilam mooy xamal jàngal wa maana ilam nee na maanaa bi fi'lu amrin la fan lañ ko jëlee min ayna axasna al fi'l fan lañ jëlee fi'l bi min al ilmi ci xam-xam lañ ko jëlee ay taallama jàng na wa huwa wal ilmu huwa idraaku shay ala ma huwa alayhi fi lwaaqi aw tasawuru shay ala tibqa alwaaqii lan mooy lan mooy al ilmu lan mooy xam-xam luy xam-xam xam-xam mooy lan buñ la laajee maa huwa al ilmu looy tontu lan mooy xam-xam borom téere bi nee na huwa idraaku shay mooy nga xam dara ala ma huwa alayhi mbir moomu nga xam bi nga koy xam ca na mu amee nga ko xamee fil waaqi comme ni mu amee noonu nga ko xamee aw tasawuru say walla nga jël image yu dara ala tibqal waaqii image bi ni mu amee noonu nga ko jëlee ñaar yëpp am nga ci xam-xam peeg nga ko wër nga ko ba xam ko loolu mooy al ilmu idraaku shay ala xilaaf maa huwa alayhi min alwaaqi aw tasawuru shay ala xilaafi alwaaqi fa huwa jahlun wa huwa diddul ilmi nga jàng dara fekk ni nga ko jàngee du noonu wala nga imaginer dara fekk imagination bi nga ko jox du loolu est-ce que loolu xam-xam la nee na loolu réer la fa huwa jahl waaye lan mooy xam-xam dëgg-dëgg mooy li nga jàng bi nga demee ba càmbar ko ba xool ko nga fekk li nga jàng noonu nga ko jàngee noonu la amee su boobaa nag yow léegi am nga xam-xam ci mbir mi benn misaal dangaa dégg salaat bi nga demee nga fekk salaat yaa ngi doon dégg sa yaay naan la man de damay togg salaat damay togg salaat nga jàpp ne togg salaat mooy dem marché ndugg salaat ba pare nga daal di ñëw raxas cin bi def ci diwlin daal di koy teg ci cin bi wala nga def ci ndox ba mu fees nga teg ko ci cin bi yokk gaz bi tëmbal sob salaat bi tëmbal pompiteer yeeg soble yeeg lépp tëmbal yëpp ba yëpp ñor nga daal di yekk ngay ñëw ne yekk naa salaat est-ce que noonu la yow da ngaa dégg rek dañuy togg rek lu ngeen di togg tey ngi ne de salaat la ñuy togg rek nga yaakaar ne salaat dañ koy togg fekk salaat kenn du ko baxal waa mu benn soxna nag mu dem baxalal la salaat nag nooy def da nga koy fase ah doo ko jàngal sax bokk nga yar ko jàngalaat ko kon ndeke idraaku shay xam dara ala xilaafi ma huwa alayhi ni nga ko xamee du noonu aw tasawuru shay wala imagine dara imagination bi nga ko jox du loolu nee na fa huwal jëxlu loolu réer la fa huwa diddul ilmi loolu mooy contraire u xam-xam ndeke xam-xam mooy li nga xam nga xam ko muy lu leer nga jàng ko càmbar ko ñu vérifier ko fekk ni nga ko jàngee noonu la amee ca mbir ma wala xabaar bi nga joxee noonu la kon yow am nga ci loolu xam-xam amma bu fekkente ne da nga kaa jàng ba pare ñu dem xool fekk ni nga ko jàngee du noonu yow ni nga yaakaaroon du loolu ndax loolu xam-xam la loolu xam-xam loolu réer la kon sëriñ bi nee na i'lam xamal lu mu ci teg mu ne rahimakallah yal na la yàlla yërëm rahimakallah yal na la yàlla yërëm mu ne qawluhu rahimakallah wax ji mu la sëriñ bi ñaanal ne la yal na la yàlla yërëm nee na haza duaa un loolu ñaan la li taalibil ilmi ci kiy sàkki xam-xam ñu ñaanal ko fa cheikh yad'u li taalibati l ilmi li talabati l ilmi bi an yarhamuhumullah sëriñ baa ngi ñaanal ñii sàkku xam-xam yal na leen yàlla yërëm sëriñ bi bi mu bindee téere béeg léegi xam ngeen ñaata at la Muhammad ibnu Abdul Wahab jamono mag léegi ñaata at la xam ngeen ko question bu ma leen laaj la na ngeen ko trouvé bu ko trouvé àllarba bii di ñëw incha allah xam nga moon xoolal sëriñ bi bi mu ñaanee ñaan gi bi mu bindee téere bi ba léegi ñaanal ñiy sàkku xam-xam ba fii ñu toog ba àddina bi di jeex ku jàng téere bi rek sëriñ bi ñaanal na la ne la nga yàll na la yàlla yërëm sëriñ baa ngi ñaanal ñiy sàkku xam-xam bi an yarhamuhumullah ci yàlla yàll na leen yërëm wa an yulqiya alayhim rahmata yal na yàlla sànni yërmandeem ci ñoom subhaanahu wa taala fa haza fiihi atalattufu min almuallimi bilmutaallimi allahu akbar mbokk yi lii yërmande la boo xam ne chaque jour dafa war a jóge ci kiy jàngale jëm ci ñi muy chaque jour kiy jàngale dafa war a yërëm ñi muy jàngal chaque jour kiy jàngale dafa war a yërëm ñi muy jàngal wa annahu yabda'u bil kalaami tayyibi moom sëriñ bi mu ngi tàmbalee waxam ji ci wax ju neex wax ju teey wa du'aa u saalix ak ñaan bu bu wér bu set xataa yusiru zalika fiihi wa yaqbalu ala muallimihi ba mu mën a nangu li muy jàng mu mën a accueillir sëriñ bi du rejeter sëriñ bi bu sëriñ bi ñëwee di ko jàngal am na ñoo xam ne ki leen di jàngal bu dee tëll nu ñuy def seen kanam yi seen kanam yi day changé bal sax yenn saa yi nga gis ñoo xam ne bu ñu duggee classe ki leen war a jàngal xaw a tardé ay minutes da ngay gis ñenn ñi naan yàlla na dee yàlla na dee yàlla bu mu ñëw yàlla na accidenté ci yoon bi yàlla na jabaram dee moom yàlla na doomam dee tey yàlla na am ngénte yàlla na am dëj ya pour lan pour bañ a jàng ndeysaan gis nga de xoolal moom mu ngi ñëw di leen xamal di leen sol xam-xam ñoom loolu moo tax ndeysaan bu fekkee sëriñ bi nag ñëw na nag ustaas bi ñëw na wala maître bi ñëw na wala professeur bi ñëw na bi mu ñëwee ndeysaan mu daal leen di ñaanal xale yi ay xale yi yéen a ngi toog waaye yéen daal yal na leen yàlla fay ah maa ngi tardé ba pare ngeen toog wala ah ñaanal leen ubbeeku kanamam ah léegi xale yi kat dañuy xam ne suñu professeur bi du ku bon ku baax la beneen yoone bu tardé sax gars yi dinañ toog waaye duñ ko ñaanal yal na dee yal na damm yal na mokk ah waaye bal dañuy ñëw toog xaar ko moo tax sëriñ bi bi mu commencé bi mu commencé jàngale téere bi mu ñaanal taalibeem yi jàng téere bi mu ne leen lan yal na leen yàlla yërëm ilam rahimakallah mu ne wa duaa u saalih ñaanal na leen ñaan bu baax xatta yu assira zalika fiihi ba ñaan boobu pour mu jeexital ci ñoom ñi jàng wa yaqbalu ala muallimihi ba xale bi jàng dina mën a recevoir sëriñ bi bëgg sëriñ bi yàkkamti cours bi lu muy jot ba mu ñëw jàng si amma iza badaa al muallim bi kalaami al qaasi su fekkoon ne tey maître bi wala professeur bi wala oustaz bi wala sëriñ bi bi mu ñëwee di jàngale daa ñëw ak kanam gu lëndëm yor ngandum bolde ñoo ne ko tëll ci taabal ji changé kanam dëgëral wax ji mbokk yi wax ji nekk wax ju wow koŋ koŋ koŋ naka la ko élèves yi di teeroo beneen yoon beneen leçon bi bu amaatee naka la ko élèves yi teeroo ah ay ñaan yu bon xol yu ñoom tamit seen lëndëmal seen kanam kii ne day dof dof lu dina xam ne ñoo ko gën a kannasu waaw dara gis nga commencé di ko bañ fa inna haza ah nee na loolu loolu lay waral day tax xale yi di daw cours bi am na professeur yu bëri di tax élèves yi di daw seen cours parce que ñoom la ñoom ñoo munul fexe ba capter xale yi fexe ñoom ba ñu dugg ci xolu xale yi xale yi di yàkkamti seen cours jot am na professeur yoo xam ne wala maître yoo xam ne wala oustaz yoo xam ne bu ñu amee cours gis nga même imam même jiite jumaa sax même jiite jumaa am na ci imam yoo xam ne gars yi dañuy yàkkamti ñu ñëw parce que da nga war a fexe ba ñi ngay waxal ñu dugg sa biir xol ñu bëgg la nee na fal waajib kon li war alal muallimi ci kiy jàngale ala man yad'uuhu ila allah wala kii woote li ko war ci ñi muy woo jëme leen ci yàlla wa ala man yaamuru bil maaruf wa yanha anil munkar kii digle lu baax di tere lu bon lan moo ko war mooy atalattuf bi man yuxaalituhu biddu'a wa sana alayhi laysa dafa war a lewet waaw bu duggee classe alors bonjour les enfants assalaamu aleykum ya awlaadi assalaamu aleykum ya ahbaabi amoon nañ benn oustaz ndeysaan duggee classe mu ne soo waxee mu ne naam yaa wabba naam yaa waladi tayyib ahsanta noonu ngay def ndeysaan da nga war a fexe nga leer ci gaay nga fexe nga leen di ñaanal nga leen di wax wax ju nooy même booy woote nga woo nit ñi ci langage bu rafet bu correct bu nooy fa inna hada addu lil qubul nee na loolu day moom malum gën a yaakaar li ngay jàngale daal di dugg ñi ngay jàngal déglu la ñi ngay waxal nangu li ngay wax ñi ngay woo ñu wuyu la jàngeen ci tilaawa benn waaye dafay ñëw di woo xaw ma xaw ma bukki bi la doon woo xaw ma tilli bi la doon woo xaw ma baa bukki ñu ne bukki moo doon woo njombor yor paaka ci ginnaaw nëbbu ko ne ko nii njambala la doon woo bukki moo doon woo njamala yor paaka ci ginnaaw ne ko njamala kaay wuy sa yaay njam njamala bi ne ko sama yaay du ma woowee paaka njamala kaay wuy sa yaay sama yaay du ma woowee paaka gis nga imagine mu ne ko njamala kaay wuy sa yaay waaye lan moo nekk ci ginnaaw paaka ndeke njamala bi gis na paaka bi njamala bi ne ko sama yaay du ma woowee paaka kon booy woo nit ñi itam bul yor ay bol de bu yor ay cours kon nit ñi duñ ñëw waaye booy woote da ngay tàllal loxo yi tàllal kanam gi fecc kanam gi génn ci salaamiñ wax ju nooy wax ju rafet moo tax sëriñ bi bi mu commencé jàngale mu bañ xale yi di daw cours bi professeur bi bi mu commencé jàngale mu bañ élèves yi di daw lan la ubbee cours bi rahimakumullah yal na leen yàlla yërëm ilam rahimakallah nee na amma almuaanid walmukaabir fa haada lahu xitaabun axar fa qaala subhaanahu wala tujaadilu ahla alkitaabi illa billati hiya axsan illa allazina zalamu minhum borom bi tabaaraka wa taala nee na kii jàngale téere bi nee na bu fekkee nag ki fittirlu bu fekkee kii ngand ngandlu bu fekkee élève boo xam ne nag moom dañoo ñëw di jàng moom ci cours bi muy daw wala muy jaay dëgër bopp wala muy ngand ngandlu nee na kooku nag am na beneen langage bu ñu war a waxee ak moom bu bokkul ak rahimakumullah kooku am na façon langage am loolu tax borom bi wax ci quran ne bu ngeen di dàggasante ak ahlul kitaab mooy ahlul kitaab mooy ñan kan mooy ahlul kitaab ñan ñooy ahlul kitaab ñu bindu téere yan ñan ñooy ahlul kitaab yow ah nahu yahud ak nasaraan ñan ñooy yahudi ak nasaraan yow yahudi kan mooy seen yonent pusal yahudi ñan ñooy kan mooy seen yonent allahu akbar yahudi kan mooy seen yonent allahu akbar yahudi kuy seen yonent allahu akbar nasaraan yi kan mooy seen yonent Isa yahud yi xamoo ko allahu akbar yahud yi kuy seen yonent Moussa musulman yi kuy seen yonent musulman yi laa wax de musulman yi sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi ragal leen yàlla réviser leen leçon yi yahudi Moussa mooy seen yonent nasaraan yi isa bnu mariam jullit yi muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yàlla nee na bu ñuy waxante ak yahudi ak nasaraan yi bu ñuy wax ak ñoom nañu wax ak ñoom ci langage bu rafet wala tujaadilu ahlal kitaab illa billati hiya ahsan illa allazina zalamu minhum wa qulu amanna billazi unzila ilayna wa ma unzila ilaykum wa ilahukum wa ilahuna ilahukum wa ilahukum wahid wa nahnu lahu muslimun borom bi nee na bu ngeen di wax ak ahlul kitaab na ngeen leen wax ne na ngeen wax ak ñoom wax ju rafet ngeen won leen ne ngeen wax leen ne ñun dey gëm nañu li yàlla wàcc ci yéen ñun gëm nañ li yàlla wàcc ci ñun gëm nañ li yàlla wàcc ci yéen sunu boroom ak seen boroom kenn kese la du ñaar wa ilaahuna wa ilaahukum waahid wa nahnu lahu muslimuun ñun benn yàlla boobu nag ñun moom la ñu jébbulul gis nga wax ji commencement bi wax ju neex la waaye fi mu teere dafa tar dafa tàng ndax lan wa quulu wax leen amanna billazi unzila ilayna wa unzila ilaykum wa ilaahuna wa ilaahukum waahid fa nahnu lahu muslimun mooy ñëw leen ñun ak yéen ñoo bokk yàlla ñun ak yéen ñoo bokk boroom su ngeen lankee nag ah ñu ne leen fi ñukku nag ñun dem jaamuñu suñu boroom kon boroom téere bi mu ngi jàngale loolu mu ne fa lazina zalamu min ahlil kitaab wa aanadu wa kaabaru haulaai laa yuxaatabuun billati hiya ahsan foo fekk élève bu féetéerlu ci classe élève buy jaay dëgër bopp élève buy daw jàng kenn du négocier ak moom naan ko yàlla na la yàlla yërëm yow ah ah déedéet boobu dañ naan ñàdd leen ko jàpp leen ko suñuy wax ak yow dañ lay gëdd pes dóor pour nga génn ci lool nga nekk moo tax yàlla mu ne ñiit nga xam ne ci ahlu kitaab lañ bokk dañoo ngand ngandalu di rëy rëylu nee na ñi kenn du wax ak ñoom billati hiya ahsan kenn du wax ak ñoom ci langage bu rafet yu xaatabuun mu ne bu ñuy wax ak ñoom yan façon wax la ñuy wax ak ñoom bi maa yaruddu bi maa yuraddiuhum ci lu leen di delloo qaala taala yaa ayyuha nnabiyu jaahidi alkuffaara walmunaafiqiin waxluz alayhim wa maawaahum jahannam wa biisa almasiir ee yow yonent bi xeexal ak yéeféer yi ak naafiq yi tàngalal ci seen kaw nga yëgal leen ne bu ñu deewee jahannama lañ jëm te jahannama ku fa dugg ku fa mujj mujj nga fu bon almunaafiquun laa yujaahiduuna bisilaax naafiq yi kenn du xeex ak ñoom ci ngànnaay wa innama yujaahaduuna bil hujjati wal kalaami naafiq yéeféer bu ñuy xeex ak moom lan la ñuy xeex ak moom arme naafiq nag bu ñuy xeex ak moom lu ñuy xeex ak moom ci wax ju leer ci xam-xam moo tax il faut ngeen jàng ndax ngeen mën di dàggasanteeg bokkaalekatu yàlla yiy dévier doomu aadama yi sàcc seen pas-pas yi di leen gëmloo ay tarixa yu kenn xamul te xam ngeen ne tarixa bokkul ci lislaam fa ngeen jàng ndax ngeen sëfe jaamu yàlla yi pour ñu génn ci tarixa yi parce que tarixa baaxul fa ngeen am langage xam-xam ci alquran ak sunna jàng diine ba mu leer nañ pour pour la pour ngeen mën leen mën a wax ak ñoom pour ngeen mën leen génne ci lëndëm gi ñu nekk riir gi ñu nekk moo tax mu ne almunaafiquun naafiq yi laa yujaahaduuna bi silaa kenn du xeex ak ñoom ci jaasi wa innama yujaahaduun bil xujjati wal kalaam dañuy xeex ak ñoom ci lay al xujja mooy lay wal kalaam ak wax wa raddi alayhim ak delloo leen bil xilza sooy wax ak ñoom nag wax ju dëgër këŋ bul yërëm dóoral ci xol yi ba ñu xam ne yàlla mooy wax ak ñoom pour ñu génn ci li ñu nekk ci naafiq gi balaa ñuy dee di dem safara mu ne wa qaala taala fihim yàlla wax na mu ne waqul lahum fi anfusihim qawlan baliir yàlla nee na bu ngeen di wax ak naafiq yi na ngeen leen duur wax yoo xam ne bu ñu tëddee du ñu nelaw bu ñu tëddee danañ xalaat ci wax jooju qawlan baliir wax yoo xam ne day sax ci ñoom day am une semaine mu naan ci kii li ma wax loolu yàllaa ko wax naafiq kenn du wax ak ñoom di seddal wax ci waaw te Sénégal li fi ëpp ay naafiq lañ da ngay dégg ñu ne quatre-vingt-quinze pour cent musulman quatre-vingt-quinze pour cent pour cent ay naafiq dañuy mbubbawoo lislaam kenn gëmu ci dara kenn gëmu ci sunna kenn gëmu ci yàlla koo wax mu ne yàlla ak boo ne yonent bi mu ne sunna kese la yàlla kese yàlla rek ah waaw gis nga loolu la ñuy wax waaw koo wax mu ne yàlla ak yàlla ak nga ne ko sunna mu ne sunna kese la yonent bi rek moo ko doon def yonent bi kese moo tax gëmuñu yàlla gëmuñu yonent mbokk jullit yi kon sëriñ baa ngi noonu loolu la jàngale mu ne haula ilahum xitaabun xaas ñii dafa am langage bu ñuy wax ak ñoom li annahum ahlul inaad ndax ñii ñooy ñi fetteerlu wa mukaabira ñi ñooy ñi ngand ngandlu wala yuriduuna alxaqa bal yuriduuna tadlil tadlilil noos nee na bëgguñu dëgg bëgguñu dëgg li ñu bëgg mooy réeral nit ñi fa haulaai yuxaatabuun bima yaliqu bihim ni ñu war a waxee ñoom mooy wax joo xam ne mooy yell ci ñoom képp koo xam ne da ngaa bëgg di réeral nit ñi comme tey ci suba ki ngeen gis ci Facebook bi muy toroxal nit ñi ak ñuulaayam ak mbuxriwaayam muy niroog ñay man ku mel noonu xaw ma nu ko nit di defee sëriñ koo xam ne xamul dara ci diine di ko def di di dem ci moom di raam ak di dof-dof lu ñooñu duñu ay nitu diine ñooñu dafa am langage bu ñu war a waxee ak ñoom langage bu ñu moom amma ab taalib bu fekkee élève la bu fekkee taalibe la bu fekkee kii sàkku xam-xam ki nga xam ne dafa jub fa haada yuxaatabu bi rifqi dañuy wax ak moom ndànk war rahmati ñu wax ak moom ci yërmande wa lutfi ñu wax ak moom ci lewet li annahu yuridu lxaq wa yuridu l ilma wal faida lan moo tax kooku dañoo war a wax ak moom ci lewet wax ak moom ci yërmande wax ak moom ci wax ju nooy lu tax ndax moom dafa bëgg xam-xam ndax moom dafa bëgg xam-xam ak lan dafa bëgg diine ndax dafa bëgg jëriñu dafa bëgg fayda dafa bëgg xam kon su ñuy wax ak moom ñu wax ak moom ndànk mbokk jullit yi nee na qawluhu ilam rahimakullah kallah sëriñ bi ñaan bi mu ñaan ne xamal yal na la yàlla yërëm duwaa un laka bir rahma da yégal ne yow miy jàng yëg leen ne tey yéen ñi toog fii sama kanam sëriñ bi yéen lay ñaanal nee na yal na leen yàlla yërëm fa iza rahimakallah mbokk yi ñun ñu toog fii ku yàlla yërëm looy am kan ci ñun fi moo bëgg yàlla yërëm ko tàmman di bëgg naa ko xaw ma yéen nag ana ñu ko bëgg ana ñu nee na fa innaka takunu sa'idan biha fi dunya wal axira mbokk yi su la yàlla yërëmee xam nga looy am texe nga àdduna texe nga àllaaxira waaye waaye yàlla na ma yàlla yërëm waay waaye waaye yàlla na yàlla yërëm waay mbokk yi ku yàlla yërëm texe nga àdduna texe nga àllaaxira fa iza daxalta fi rahmatillahi wa haza du'aun min alaalimi aljalil isa daxalta fi rahmatillahi yow bis bu la yàlla dimbalee ba nga dugg ci yërmande yàlla na nga yëg ne lii ñaan la bu la boroom xam-xam bu tedd bi ñaanal haza du'aun lii du ñaan la fu mu jóge min aalimin jalil ci ñaanu boroom xam-xam wa rajulu saalix nit ku baax yurja lahul qubul incha allah ñun ñëpp ñu ngi ànd di yaakaar ne sëriñ bi ñaan bi mu ñaan yàlla dina ko nangu képp ku jàng téere bi sëriñ bi ñaanal na la ni ñaanal na la te ñaan gi yaakaar nan ne yàlla dina ko nangu kon na ngeen yëg ne tey sunu dars mooy lan al ilm mooy lan sunu dars mooy ilam rahimakallah xamal yal na la yàlla yërëm waxoon naa leen ne incha allah dars yi dañ koy mokkal kon bind leen loolu bismillahi irrahmani irrahim ilam rahimakumullah